À travers Agéroute et nos structures, en milieu urbain, effectivement, c'est des routes tenant compte maintenant de, de, de l'assainissement réalisé par soit les service de ONAS ou bien au niveau du ministère en charge de l'eau et de l'assainissement. Bon, demain, dans les routes, sur les routes nationales, il est prévu effectivement des aménagements de drainage d'eau ou même des radiers pour permettre l'évacuation des eaux pluviales. Et ça, c'est visible et nous avons tous constaté que les routes que nous réalisons, que les routes nationales nous réalisées, ces routes ou bien même au niveau des autoroutes, ce n'est pas impacté par donc, euh, le phénomène des inondations. Voilà donc, c'est pour dire que sur les routes, la réalisation des routes et des sols, c'est des réalisations c'est contrôlé par des bureaux de contrôle, c'est validé et vraiment c'est réceptionné selon les règles de l'art. Revenant sur le cas de l'autopont de Kermassar, évoqué par l'honorable député Sanou John. Mais autopont Kermassar, mais amul aucun problème ni de choix technique ni de réalisation. Autopont Kermassar, problème bu mu am problème encombrement la am par les marchands ambulants encombrement la am du leneen ça c'est un deuxièmement aussi il y a des voies à traiter à l'intérieur de Kermassar pour permettre la fluidité du transport au niveau donc département Kermassar. Mais ce n'est pas l'autopont qui a des problèmes. L'autopont n'a aucun problème. Le choix technique a été très bien fait. Réalisation euh, euh, réceptionnée dans les règles de la Donc l'autopont n'a aucun problème de choix ni d'orientation technique ni technologique. Voilà, c'est les, les, les euh, activités connexes telles que l'occupation anarchique, effectivement, occupation boobu moo tax euh, les conséquences ñi ngi am ba léegi et avec l'autorité de l'administration territoriale maanaam le préfet du département et le maire des euh, en tout cas rencontre ñi ngi am entre ces différents acteurs là pour trouver des solutions euh, évitant ainsi effectivement les désagréments yi nga xam les riverains et les utilisateurs les usagers ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy vivre Non, aussi sur euh, les emprises, honorable député euh, Alassane Ndoye wax na waxu les emprises des autoroutes ou des routes nationales mais kooku loo moo ko définir booy defar autoroute wala nga defar maanaam route nationale loi bi dafa ni il faut cent mètres d'emprise cent yooyu loi moo ko loolu moo boo ko indi loolu moo tax ñu respecter lu ñu loi mën a wax maintenant bu fekkee am na ay impact yoo xam ni voilà dal na maanaam les populations naturellement ces impacts là dañ koy évaluer fay leen impasse seront effectivement les barèmes les barèmes en vigueur et loolu la ñu observé sur le tout le corridor de l'autoroute ou même sur toutes les sur les axes en cours de réalisation moo xam ne route nationale wala leneen euh, rond-point Gadaye aussi honorable député Ahmed Aïdara wax na ko des aménagements seront réalisés pour effectivement éviter euh, accident yooyu ci am à jour, on a bien noté par rapport à ça. Bon, il y en a le député euh, Guy Marie Sagna, de nous voir affaire où, voilà, l'offre euh, avec matière. Moi, ça ne fi mais nous voulons l'air. Vraiment, nous l'air quand nous n'y mën nga ñëw def benn offre mu nekk cent milliards keneen ñëw def beneen offre mu nekk je sais pas cinquante milliards nga def offre cent milliards boo xam ni en fait répondre ci yenn critères yi répondre ci critères yenn critères yi war nga ñëw par exemple comme entreprise ba mooy Mabey def offre ay autopont n'évoquant que la superstructure bolwul amul leneen lu ci bokk amul leneen lu ci bokk offre boobu mënul gën a compétitif avec offre boo xam ni dafa jël en compte l'ensemble des problématiques prix yi mënuñu bokk donc offre bu mënti am en fait nañu xam ni day jaar au niveau des structures de l'État les prix sont contrôlés fii yaa génie civil amul tâtonné génie civil la ay chiffres la ak ay quantité amul leneen kenn mënu ko du du prestation intellectuelle calcul la structure la ñu xam ñu nekk ingénieur génie civil xam nañ ko quantité la quantité yi xam nañ li lay jar matériaux la matériaux yi xam nañ li lay jar xam nañ fi mu toll da ngay def sa tableau rek génn seen te beneen tableau Excel di calculer ci les coûts amul leneen lu ci nekk donc amul kenn ku mën a nax leneen ci ay question de coût soo loolu il faut mu leer ñuy bàyyi wax loo xam ni dañu bëgg jaxase askan bi te amul donc loolu dama bëgg vraiment leeral mbir mu offre yooyu ñuy wax euh, matière moo def les dix-huit autoponts et les prix son contrôlés voilà et dafa nekk foo xam ne ku ci bëgg jot aussi mën nga mën nga cee jot Euh, bon les autres axes wax nañ ko bon parce que toujours est que les honorables députés donc dañuy profité ci occasion yi pour wax seen problème dëkk euh, P P euh, Kébémer PSD ci la bokk mais damay rappeler toujours le programme spécial des désenclavement c'est un programme sur trois ans c'est un programme sur trois ans quatre cent cinquante trois de financement quatre cent cinquante trois milliards de financement lépp mënuñu commencer ndoo am na ñuy commencé léegi am na yoo xam ne dana commencé fii léegi peut-être d'ici un an maximum développé ko pour mën a jot l'ensemble des départements te Kébémer effectivement le PSE prend en charge une bonne partie du du, du, du de Kébémer la boucle de Fouladou wax nañu ko fii léegi y une partie financée par la BOAD qui va de Dabo dem Fafacourou egg Médina Yoro Foulah c'est en cours de réalisation l'autre partie Pata Kolda Effectivement, on a lancé les travaux, mais aujourd'hui, on a eu quelques problèmes de financement, montant nous ralentir en attendant qu'on règle la question à partir du PSD. Beaucoup du Fladou. Et dire que beaucoup de, beaucoup de Fladou, préoccupation présente de la République, parce que Fladou, amoureux un mètre de goudron. Aujourd'hui, travaux et on verra parfaitement bien que la boucle du Fladou, en tout cas le département de Mirna sera un département naturellement bien désenclavé. et même les axes yoo xam ni par exemple jusqu'à euh, Ndorna sur 7 kilomètres cet axe la sera réalisé maintenant on va étudier la la euh, la possibilité de prolongement jusqu'à Morocco et ça c'est pris en charge dans le cadre donc du P, du PSD la route des Niayes euh, ça intéresse beaucoup le département de Pikine et le département de Guédiawaye les travaux de la route des Niayes vont démarrer bientôt parce que pendant trois ans ou quatre ans On a eu des problèmes pour finaliser en réalité donc l'histoire de la contractualisation donc de ces axes importants nga xam ni moom mooy boucle route des Niayes parce que bëri ay axes yu bëri les travaux vont démarrer bientôt et ça prend en charge euh, bon voilà le à part du centre de sauvegarde il le marché Sam il y a beaucoup d'axes au niveau de la route des c'est financé par la Banque de Chine et ces travaux sont réalisés par l'entreprise euh, une entreprise euh, Enan Chine si sont exacts voilà Il y a une autre question posée par honorable député Tian Assam Sall relativement donc aux contactés du ministère. Et sur ce point, moi, quand je suis arrivé au ministère en charge des infrastructures, j'ai trouvé des agents professionnels, dévoués, sans aucun contrat. Et loolu am na pas mal de ministères dañuy ñëw nekk foofu pendant des années am na ñu fay dem ba retraité te du ñu am contrat daloo na moom mu nekk hydraulique bañ fa nekkee on a régularisé tous les contractuels nekkoon à l'hydraulique tous les contractuels quand je suis arrivé au ministère en charge des infrastructures ma trouvé la même situation ñu defal leen des contrats à durée indéterminée cent soixante seize agents cent soixante seize kenn amu ci contrat ñu nekk dans toutes les régions du Sénégal am na ci ñoo xam ni même ils ont des diplômes supérieurs moo suñu am contrat ñu defal leen contrat ñu nekk des contrats yoo xam ni régis par le code Même, donc, quand l'histoire des augmentations, pour de la fonction publique, naturellement, ils ont posé la question. Mais ce n'est pas des fonctionnaires de la fonction publique. Les augmentations, fonctionnaires le LAL. Nous pouvons bénéficier d'augmentations selon le code du travail. Et chaque année, à etc. Mais c'est ça, c'est ça fondamentalement la différence. Ce pas des agents de la fonction publique, c'est des agents à qui on a trouvé donc, la possibilité d'avoir des contrats à durée en stabilité sociale, en aussi stabilité donc, dans le Et c'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, ces contracteurs-là, ces collaborateurs-là, nous savons, machallah, nous avons solo, di euh, exercer cette mission. Je pense que quand même, lolo, c'est une avancée significative. Alors, donc, euh, pour la suite des questions, bon, on a na affaire les horaires, euh, les horaires transport de, de nuit, c'est compliqué. je pense que les mesures de qui me concernent en partie, donc une des mesures, les horaires, 23h05 du matin, euh, on touche du bois, euh, a un impact positif. Alors, bis buñ ko laalee mu am safaan ba bu boobaa daañu dal suñ kaw voilà donc mesure moom day metti ne que les que les transporteurs s'adaptent et ils se sont adaptés nañu kon ne adapté wu parce que xam nañ bu baax tous les accidents une bonne part des accidents am c'était la nuit moo tax on a interdit à travers un euh, arrêté interministériel signé entre le ministère de l'intérieur et le en charge des infrastructures des transports des transports terrestres un arrêté interministériel qui organise les heures les, les heures de transport des véhicules de transport public 5 heures du voilà vingt-trois cinq heures du matin bon des fois et quelques dérogations la ñu am mais honnêtement euh, voilà il faut c'est des mesures yoo xam ni mënoo ko laal en fonction des des des des événements alors donc euh, voilà am na question yoo xam ni euh, sur euh, bon les entreprises bon damay fàttali les entreprises nationales gagnent plus de 70 pour cent des marchés de l'État pour cent les entreprises étrangères gagnent moins de voilà moins de 30 pour cent ça c'est un rapport sorti par l'ARMP et entreprise buy gagner marché dangay ngay dem compétir pour gagner marché appel d'offres les gré à gré yu ñuy wax les gré à gré ne représentent pas pour cent des marchés est gravé, ça fait partie du code des marchés publics. Il y a des éléments qu'il faut aller rechercher. Hall, bon, il y a l'espace UEMOA. 2021, 2000, 2020, 2021. 2021, le Sénégal est à 4% de gré gré. En 2020, non, 5% en 2021, 4% en 2020. C'est le seul pays dans l'espace UEMOA qui est à moins de 5% en termes de marché de gré à gré. C'est ça là, l'homme de Gibi, l'homme am. te gré à gré dafa bokk ci environnement wala du marché public mais Sénégal du def gré à gré c'est les entreprises nationales qui gagnent les plus gros marchés c'est les entreprises de droit sénégalais plus de 70 pour cent des entreprises étrangères boo par pays pays pays globalement wala ça fait un peu moins de loolu moo am du waxantu bu ngeen demee ARMP xool au niveau des marchés daal lay jox daal lay jox les statistiques lu am et c'est vraiment noonu la noonu la noonu noonu la demee donc marché moom il faut nga compétir pour mën a gagner pour mën a gagner gagner marché voilà donc euh, euh, monsieur le président je pense que j'ai pas évacué toutes les questions posées par les honorables députés mais j'ai essayé d'apporter des éléments de réponse par rapport donc à certaines préoccupations bon la nature naturellement euh, honorable député Cheikh Seck da koy évoqué souvent bon c'est un combat parce que la ture on a dit la ture et doit être entièrement dédiée donc on fera pour 30 pour cent investissement et 70 pour cent pour l'entretien routier mais c'est la ture qu'on a mis effectivement pour faire le PSD aujourd'hui les finances effectivement ñu ngi def ay efforts importants pour mën a ñu jàppale ñu mën a def et l'entretien et donc l'investissement euh, à travers par exemple le PSD euh, voilà les ralentisseurs c'est une préoccupation effectivement évoquée par les communes traversées par les lignes nationales un jour essayer de faire des efforts pour en faire davantage le dernier point bu mooy mën a wax c'est sur le BRT ak lu luñ ci wax comme comme problème c'est vrai que suñu gisee yàqu-yàqu BRT bi dafa nekk loo xam ni euh, doy na waar parce que BRT day jóge fële ca Gadaye dem Petersen sur à peu près dix-huit kilomètres war a transporter trois cent mille passagers jour avec dans un premier temps plus de cent vingt et un bus ça c'est la ligne principale réservée et d'ici 2025 2026 un système de bus de rabattement yoo xam ni c'est les acteurs lañ koy affecté les transporteurs et même Dakar Dem Dikk à terme plus de 1000 bus de rabattement pour améliorer la mobilité au niveau de Dakar et nous avons vu que le corridor du BRT yàq bi moom doy na tey incha allah dañ def visite ànd ak premier ministre c'était planifié yàq bi moom lañ ko planifié su ñu jëlee par exemple maanaam les les stations tout ce qui est système de signalisation lumineuse tricolore dañ ko yàq lépp su ñu jëlee la station Liberté 6 mi nga xam ni la station Liberté 6 moo doon la station témoin ñu réalisé ko à plus vingt quinze pour cent quatre vingt quinze pour cent pare na lépp la ñuy yàq. vitrage dañ ko toj ay porte escamotable yu nekk à l'intérieur dañ ko toj vandaliser ko ah lakk ko les écrans d'information ñu lakk ko et c'était cible kan mooy dugg ci BRT c'est les populations ku ciy dugg c'est les populations mais loolu du empêcher bu neexee yàlla que lu président Macky Sall bëgg pour que le BRT mën a daw au plus tard au mois de décembre bu neexee yàlla dana daw te gëm naa ni aussi kenn gëm naa nag kenn du ko yàqat kenn dootu ko yàqat voilà bien public la pour population yi la parce que BRT dafay dafay ànd ak le TER ànd ak la TER jéem nañu yàq TER bi taal nañu ay ay câble sànn nañu ay maanaam ay pën yu pneu ñuy taal jéem nañu sànni ay xeer ci BRT bi non ci TER bi aussi mais nañu xam ni alalu askan bi la askan ku ci nekk ci ñun yàq moom te waru ko loolu kenn waru ko yàq c'est pour population yi la maanaam dafa nekk loo xam ni boo demee bitim réew ñuy wax ni Sénégal lu mu defar comme maanaam infrastructure moderne pour améliorer la mobilité kooku dañ ko war a garder garde boo xam ni comme lu ñuy garder suñu mbiru bopp la mais pas lu ñu war a yàq donc ñu ko doon jéem a yàq gëw ma ne waa Dakar ñoo ko doon jéem a yàq gëw ko waaye daañ ci daañ ci gën a taxawaat pour que alalu askan bi euh, askan bekk moom te maanaam lu ñu war pour aar alal askan bi bu neexee yàlla dañ ko war donc loolaa amoon loo xam ni bëggoon naa ko wax di remercier monsieur le président di remercier l'ensemble des parlementaires ici présents et di ñaan loi bi nga xam ni euh, moom la ñu bëggoon pour mu nekk une loi de référence laboratoire la de référence laboratoire la boo xam ni euh, yaakaar naa ni ñëwam euh, lu am solo la pour defaraat le secteur du BTP donc may gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu